ñi ñëwaat ci affaire déguerpissement yi ñu gis kii nga xamante ni mooy premier ministre dafa wàccoon foofu ca Colobane jàkkaarloog ambulant yi bi mu jàkkaarloog ñoom mu yëkkati ay kàddu nee na moom dafa ñëwoon xool situation bi ndaxte bërki démb bu jomaay mi ngi koy naan ndax dégg nga déguerpissement bi mu ne ma maak moom ñoo ci yam <laughs> gannaaw loolu mu taxaw ne nekkate ministre de l' intérieur Jean Baptiste Tine moom moo bind benn circulaire yónnee leen ko te moom yëgu ko moom muy premier ministre yëgu ko président yëgu ko ñu dellu si waat mu dajale commerçant yi xam leen ni que yëg nañ ko ñoom ñoo joxe loolu parce que foog ñu désencombré muy ñetti wax yoo xamante ni bokkuñu ndey ak baay. ci dans les vingt quatre heures ci vingt quatre heures. ci vingt quatre heures maanaam Ousmane Sonko daa wax weddi boppam. maanaam Ousmane Sonko moo wax weddi boppam waxaat weddiwaat boppam ba fa door dëggal boppam devant les marchands ambulants. waaw yow noo jàngatee loolu en tant que. waaw loolu li ma koy jàngate nekkatuñ ci sécurité ci réew mi. réew mi ku ku yeboo ku ci nekk kuy fanaan boo mën a am sab jaasi fanaanoo wala nga dem mën a wuti fetal ah parce que au tout moment yi mën nañu fee dugg rey la président daal yëguma ko woon premier ministre ni xawuma ko woon alors ah, man lool parce que ñoom lañu nekk suñu sécurité un président de la république ak tous les renseignements yi mu war a am yiy jóge armée yiy jóge ci vie civile yi yëpp war dajale ci moom ñuy dégis doomu aadama yi di leen jël seen i place di yaatal mbedd yi dëgg la loolu kenn cautionné wul ñuy jaay ci mbedd mi di jaay ci kaw tali bi mais nag président bu jëfee loolu ba pare dañoo war a jël seeni responsabilité premier ministre bi taxaw daat ni maa jël sama responsabilité pour lii ñu jël parce que changement la ñu woote rupture la ñu wax mais bu taxawee bëgg a fen ngir wàññi keneen. moom saa suy wax rek mi ngi yëkkati boppam mi ngi am ko muy suufeel Ousmane Sonko moo nanguwul ko ko jiite ci àddinaam. tey circulaire bi si boppam dafa taxaw dëggal ni que xamal ni que euh, conseillers départementaux yi ak euh, maires yi lañ ko wax. ñoom ñu taxaw ñu ne meeru Kog euh, Fann Gueule Tapée Fass bokk ci alors que Bilal Diatta bi bokk ci Pastef moo njëkk déguerpir Maïmouna Dièye bi ne woon Padois déguerpir euh, Khady Mahécor bi nekk Golf déguerpir ñoom ñëpp ñu bokk ci parti Pastef déedéet ñoom ñëpp Birame Souleye njëkk a déguerpir fële ci Thiès Thiès aussi Birame Souleye déguerpir ci Thiès ba ñuy naan waa micro RTS dañu leen ko bañ a tàllal pour ñu wax très gis nga fi may fi ma lay waxee gis nga ñii ni dañoo nekk di fowe askan wi xaw ma dañoo nax askan wi ba pare bëgg leen a li ñu leen bëgg a fowe mooy Ousmane Sonko mom xamul ne circulaire buñ koy def xanaa du ministre bi Jean Baptistine day tok bureau yor bigam dal di bind envoyer li nga xamne moy moy gouverneur wala préfet du ko def mais bala bind ben circulaire mais dañu dem conseil ministre. mais conseil ministre ko koy jiite. président de la république premier ministre. sous présidence de président premier ministre. wa mais lan mo tax ñu wax lañuy wax fofu ba pare. Mhm. wax lañu wax fof ba pare ñu defar circulaire bi Ousmane Sonko taxawaat devant population bi daal ni leen dem ke dem la ma président wo daal ni ma ah premier ministre eh, li nekk di xaw loolu la mu ne ah man dama yow ñoo ci xaw a bokk yam maam Ousmane Sonko lan lay def Colobane yow bu fekkee ay nit dañoo yàq seeni alal yàq bagas. bagage ñu am mer gu toll mais dafa waroon na taxaw def live ba moom liveur la. Mhm. moo gënoon a jomb ci moom. kon mu toog def live ñëw foofu ba taxaw ay ndaw taxaw di ko daggal ay saagay ndey. saaga yooyu nee ñu da ngeen ko monté. du montage ay Barthélémy Dias moo yónni ñuy saaga. Alxuraanul Karim xam na ni du montage. Hmm. man dama am ay preuve yu leer ay nit yu fa nekkoon. Hmm. yoo xam ne ma xam leen déggante ak ñoom. Hmm. bi ma paree vidéo yi bi ma ko jotee dama ko jël yóbbu ko ci artificiel euh, intelligent ma xool vidéo yi. benn du ci montage. benn bi ci ma cest à nag am na ñu doon saaga. Mhm. am na ñu doon apolotiser. Mhm. am na ko doon tàccu. am na fa. parce que nag mënul ñàkk. waaye foo amee ñu la bëgg am nga ñu la bañ. waaye ñi doon tàcc. te ñi ko doon saaga sax ñoom ñoo ko ñoo leen votel. maanaam maanaam maanaam ñi doon tàcc maanaam bëgg mhm. du ñu ay marchand ambulant loolu laa bëgg mu leer ci kanamu askan wi ñi doon tàccu ca kolobaan du ñu ay marchand ambulant ay nit yu ñu jëlee ci ay kaar la ñuy jóge ay Jurbel ñuy jóge ay fune ñëw wàcc Colobane mais ñi doon saaga mer ñu yàq seen alal ñoo ñooy marchand ambulant yi d'accord people